donc wàllu santé yi li ñuy wax poste médico avancé bu soobee yàlla am na ci lu toll fukk ak ñett post médico avancé yoo xamante ni district sanitaire dina ko mettre en place waaye it dina am quatre dispositif fix yoo xamante ni euh, donc yooyu dinañ ko mettre en place euh, bokk na ci it euh, li nga xamante ni moom mooy ay wàllu garab bu soobee yàlla dinañ am dotation tey jàpp naa sax donc par rapport ak édition bi passé dotation boobu dinañ ko renforcer ambulance aussi dinañ ko dinañ ko dinañ ko jot bu dee li jëm ci wàllu sécurité euh, muy force de défense et de sécurité yi police gendarmerie waaye dem ba ci sapeur euh, donc dinañ am taxawaay bu mucc ay jàpp naa ne sax ay renfort bu soobee yàlla police ak gendarmerie dinañ ko dinañ ko am. jëm ci wàllu ndox euh, fi ñu toll nii bis ni ki tey am na cinq comité cinq camions citernes yoo xamante ni mu ngi Touba yoo xamante comité d'organisation bi dinañ ko mën a jëfandikoo bu ñu jógee fii. pour man li nga xam moom mooy ay eh, ay ay ay ay bassin yu nekk ci kër yi ñu man ko root balaa màggal gi di jub si waa li nga xam xañ na moom lañ ci yokkit mooy forage yi nga xam seen débit dafa wàccoon fi mu nekk nii forage yooyu yëpp relever nañ débit yi réseau électrique bi nga xamante ni démarré na mu ngi en cours te extension boobu surtout jëm ndindi eh, loolu waa donc agence eh, Senelec gi donc ñu ngi ciy liggéey bu soobee yàlla it mise hors délestage bi donc dinañ ko dinañ ko def Euh, branchement provisoire yi aussi euh, incha allahu rabbi donc ñi nga xamante ne sollicité nañ ay branchement provisoire dinañ ko dinañ ko def